هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah asmaawi wa amma fadailu salaati ndax du foofu ah wa amma fadailu salaati sëriñ bi mu ne ngëneeli julli fa hasratun fukk la boo ko déggee mooy loo xam ne soo ko defee dafay rafetal julli gi waaye boo ko bayee du yàq ci julli gi dara du tax nga sujjootal ko te du yàq ci julli gi dara loolu fukk la ba ci njëkk rafon yedday ni mooy yëkkati ñaari loxo takk bi takbiratul ihraami fa ngay waxee allahu akbar bu njëkk bi mooy kabaru xaramal bi sooy wax allahu akbar allahu akbar boobu farata la taxawaayam ba farata la waaye loxo yi ngay yëkkati nag moom ngëneel la kon nga déggee ci ne boo taxawoon rek ba jub jublu penku rek na allahu akbar te yëkkatiku la sa loxo yi julli gi dafay wér waaye nag bu boobaa bàyyi nga ngëneel moo tax loxo yooyu ñuy yëkkati ba mu tollook ñaari nopp yi wala mu tolloo sa ñaari mbagg yi loola dañ koo sopp dégg nga wa tadwilu qiraati subi ak yàggal jàngi suba wa suuri ak tisibaar su fekkee yaa ngi julli te yàlla def na nga mokkal ci alxuraan lu bëri julli tisibaar ak julli tàkkusaan nga jullik suba ak jullik tisbaar ñaari julli yooyu suba euh, ak tisbaar nga jàng ko ci saar yu kawe yi wala aaya yu bëri moo gën dañ ko sopp rek nag de soo ci jàngoon saar yu gàtt yi mel ni xul wala anta yàqu dara waaye nag sopp nañ nga jàng ko ci xaj kow bi wala nga jàng ko ay aaya yu bëri dégg nga wa taqasiru ak gàttañlu mooy nga gàttal wa taqasiru ak gàttal qiraatil asri wal maghribi jàngi tàkkusaan ak timis nga nga gàttal ko niki jang ko ci saar yu gàtt yi loolu tamit dañ koo sopp waaye moom itam boo ko jàngoon ca saar yu kowe yi yàqu dara de waaw wa tawasitu ak digg dóomu mooy nga émale al insaa u gehe gehe moo ci des moom nga émale ko bum bum gudd ba ëpp bu nekk ci saar yu gudd yi ba ëpp bu mu nekk ci saar yu gàtt yi ba ëpp kon na em rek diggante lu mel ni ki euh, jusu amma lu mel ni gisu am ak gisu euh, lu mel ni his bu xulu ooy ya his bu tabaaraka yooyu mën nañu wax ne na su ko defee boo ko fa rombee jëm kow nag mu ñu fiit ñu tuddee lu lu kawe lu gudd soo ko soo ko commencé sëb isma ko jël suuf ñu ñu tuddee lu gàtt kon su ko defee gay e, gayee moom na digg doomu wa qawlu rabbana dégg nga wax ne borom bi wala kalhamdu cant ñeexal na la nga wax ne rabbana wala kalhamdu kana koy wax lil mu lil muqtadi ñeel aji roy muy maamoom wal wal fasi ak kenn kuy julli loolu de sopp nañ ko moom su fekkee yow maamoom nga yaa ngi ci gannaaw ilimaan ba ilimaan si gémm dafay wax sami allahu liman hamidu yow mi ci gannaawam nga ne rabbana wala kalam maamoom yi yëpp sopp nañ ko ci ñoom ñu wax ko waaye buñ ko wax ci kaw nag nañ ko yodlante maamoom bu nekkee ci gannaaw ilimaan lépp lu mooy def ndànk la koy def suy kabar sax bu mu kabar ci kaw ndax loolu dafay jaxase ilimaan sami allahu liman hamidu ndànk la koy wax lu kuy jottali rek waaw jottali itam li ci gënoon mooy su fekkee amul euh, euh, fekkee élimaan nit ñu dégguñ ko waaye bu fekkee élimaan li muy wax ñëpp a ngi koy dégg jottali bi moom lu ñu sos la rek waaye loolu bëriwut ci njariñ daal moo tax mu ne lil mooy maamoom bi aji roy ji wal fasi ak kenn kuy jul ñoom ñooy wax rabbana walakal hamdu wa tasbihu ak sàbbal fi rukkoy ci rukkoy si sujjóot ak sujjóot soo rukkooyee nga ne subhaana rabbil azim waaw ñetti yoon ci ngir imam malik moo ci gën a tuuti boo ko yokkee ba mu mat fukki yoon wala mu hëpp ko baax na wa sujjoodi ak sujjoodi mooy subhaana rabbil ala am nañu ci yokk wa bi hamdi ci beneen riwaaya subhaana rabbil ala wa bi hamdi baax na boo xamee ci sa rabbil ala hem doy na waaye moom itam ñetti yoon a gën a tuuti hen da malikiya soo ci yokkee mu gën a bëri baax na des na ci rek ni julli gi yàggee wa taamin ak wax amin bu yelimaan waxee wala dolliin ñëpp àndale na amin dañ koo sopp mooy wa taaminul fasi aminu kenn wal maamuumi ak maamuum mutlaqan maamoom moom mu wax amin ak kenn kenn buy julli bu waxee wala daal dina wax amin maamoom bu nekkee ci gannaaw élimaan bu élimaan waxee wala wax amin waaye nag léegi ci ngërëm imaam Maalik élimaan moom du wax amin waaye ci ci yeneen ngir yi lu mel ni ngërëm imaam Saafi moom dafay wax ne élimaan bu waxee wala daal dina mën na ànd ak nit ñi wax amin moo tax ngay gis ñoom ñiy def lu mel noonu kon lépp baax na waaye wax amin bi bul fàtte na daal luñ sopp la rek ndax amin bokkut ci fatiha waaye yonent bi nag wax na ne nañ ko jàng nañ ko wax ndax mu ne bu yélimaan waxee wala daal na mu ne ku wax amin bu malaaka dañuy wax amin bu sa amin bi tom ak aminu malaakayi yi rek yow euh, euh, nangul nañ la sa jaamu waaw kon nag euh, wax amin baax na donte dontale bokkut ci fatiha mu ne wa taaminul imaami ak wax aminu imam fi sirrin ci julli gi yellu faqat dong gis nga ko bu fekkee limaan ji jila buy jàng ndànk moom boo waxee wala daal na wax amin ndax nit ñi dégguñ li mooy jàng na wax amin waaye bu fekkee ci kaw lay jàng soo waxee wala daal dina na déglu euh, maamoo mi ñoom ñu wax amin su boobaa sopp nañ sax bu xawee mën a noppi tuuti mu déglu fa tuuti ndax maamoo mi mën a daw jàngi seen faatiha wal xunóotu ak xunóot itam sopp nañ ko ci jullik suba nag xunóot gi duwut ci yeneen julli waaye jullik suba soo jàngee faatee ak saar ba mu jeex ci ràkk bu mujj ba su boobaa nga noppi nag ngay yollante xunóot gi xunóot gi ñaan la waaye xen da malikiya de ñoo ko sopp de xunóot boo ko baawoon fekk yaa ko tey sax doo ko sujjóotal waaw ba ba pare yeneen julli yeneen yeneen ngir duñ ko def yeneen ngir duñ ko def kon malikiya ñoom ñoo koy def ngirab imaamu malik xunóot nag mooy allahuma xaama dañ koy bàyyi wala ñu firi ko ñu bàyyi ko beneen yoon hmm? ñu yem foofu waaw mu ngoog del doore ci xumud لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله